ci ndigalu sëñ Moustapha mi nga xam ne tey moo fi wuutu Cheikh Mouhamadou Amine Bara ci njaboot gi ci Guy Mbind ak Mbacké Kajoor at mu nekk bi fi waaju yoon daan nekk ab taalib rek la ma sa doon mos sa feccoo dara mos sa bëgg dara mos sa soxlawu sax feeñ saa suñ masaa ñëw fii ñun lay jiital ci liggéey bi suñu waxee mu ni yéenay sama doomi sëriñ kon sëriñ bi ñëw mu wax ci lay wax bi yàlla dogalee itam ay waajuram yépp jiitu mu nekk ci bopp kër gi dafa woo ñëpp bu ñu ñëw mun leen seen borom dem nañu ñun ñi fi des ñoo ko bokk kon lu ñuy waxtaane la lépp lu ñu fiy def dama leen di woo ba ngeen ñëw yéen ñëpp ñu waxtaane ko te noonu la tee sax ba magal gi bi mu jubsee dafa ñu woo man sëñ Bara sëñ Xaadim ak <coughs> ñi ci des ñëpp ni leen ni ñu bis mi ngi noonu xool leen nu mu gën a rafete ngeen doxale fas yéene taxawu màggal gi ba mu mel noo xam ne mosu ko mel ci suñu côté day lu ñu war a def lu ñu def benn fas lañ ko yéene yoon ba mu nekk fukk man nga da baax rek sëñ Moustapha waaye kilifteef doo ñuy bokk dafa oyof rek te kilifa moom oyof boo ko war wàcce boppam ba mën a wax ak ñëpp waaye kilifteef du ñuy bokk loolu waxee rek la kon ñu sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla suñu borom ndax kilifa mu ñàkk soo amee kilifa goo xam ni mu war a mel mel na ni li mu war a làmboo ci ay qualité làmboo na ko da ngay sant yàlla ci moom te ni mu nuyoo Cheikh Sidi Makhtar ci melokaan noonu la ko nuroo ci jikko noonu la ko nuroo ci biir kon ñu ñaan ko yàlla mu yàgg ci kanam njaboot gi yàgg koo jiite yàgg koo ci ginnaawam gërëm itam suñu waajur ki nga xam mooy kilifa ak borom kër gi muy bàyyi Ahmadou Makhtar ndax da nga si démb sëñ Ousmane ci lañ ko woo mooy dinaa yebal sëñ Ousmane mu ñëw ànd ak yéen liggéey ci lépp si yemul moom sëñ Muntaxa itam sëñ Tuubaa Cheikh Amadou Muntaxa moom bi Cheikh Sidi Moxtaar nekk sëñ Tuubaa daf ni woon dal ci moom jàpp ko téye ko yenn ko lu ko mën a yenn ci xilaafa ba tey sëñ Tuubaa xew ko bu sëñ Tuubaa sëñ Moustapha itam bi mu gisatul Cheikh Sidi Moxtaar jooyu ko ca li nga xam ne waru su ko mën a jooy ndax fu mu war a féete féete na fa lu war a taxawee taxawee na ko kon ñu sant ko rasulullahi alayhi salaam ci wàllu sécurité bi sax daaw bi muy ñëw ci jafe-jafe monsieur le na ko defee woon daaw moom Cheikh Oudou Moutaha incha allah noonu la ko fas yéene ñu jëm koo waajal nga xam bu sëriñ bi sécuriser sécuriser njaboot gi ba mën faa nekk ci jàmm delluwaat ci jàmm ak salaam bis bi nag ni ñu ko tënkee rek dañ ci fàttaliku Cheikh Mouhamadul Amin Bara bis bi mu koy def àddina sëñ Saliou moo waxoon ni. bisu taw feex la bi bisu faj ajo la bisu ndimbal la loolu ci nekk ci ay taw moo tax ñu koy woote kon képp ko xam ni da nga am aajo wala nga bëgg taw feex bisu boobu mooy bisu faj aajo mooy bisu taw feex Mbacke Kadior bi ñu koy defee tam wax naa ko léegi mooy benn si mouridisme moo nekkoon palais de justice bi nga xam ni Maam Mor Anta Sali fala daan atteele nekkoon pays boo xam ni suñ bopp am na ci loo xam ne ñun mënaluñ ko suñ bopp état moo luñ ko waral moo waral jataay bii moo ko waral ñu sant leen gërëm leen ci jiitu yëpp ndax mosuñu fee sàkku dara te amuñu ko liñ ko bëgg kon mosu leen wër tàmm na ci sous-préfet préfet département ba ci yow chef de service de semots yi ministre de l'intérieur ak gouvernement bi yëpp ba ci président Macky Sall sëñ baa koy sant di leen gërëm ci jàpp gi ak yëg gi fa mu tegoon Cheikh Sidi Mokhtar foofu la teg Cheikh Moustapha fa la teg njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñun itam noonu lañ ko jàppee noonu lañu fas yéene ànd ak ñaan la am ak jàppale ko ci xel jàppale ko ci ay conseil te sëñ Moustapha ci loolu la nekk njaboot gi yëpp ci loolu lañ nekk kër sëñ Bara këru yar la këru teggin la këru xam-xam la këru taalibi la ci ci la ñuy tënku jaamu yàlla ak liggéey rek la ñu xam xamuñu leneen kon ñu bu baax ci njaboot xam ni incha allahu sëñ Moustapha mi ngi koy sant di ko gërëm di ko woo ci mag bis bi jàpp nañu ni nu mu daan mel danañu jàppale ba mu mel noonu incha allah li ñuy wax rek. wax Jibi Gueye moom lañ ko joxoon moo ko yore def na lépp ba sanitaire bi sax mi ngi ci biir loolu la sëñ Moussa wax ni bëgg na ñu àggale ko ubbi ko ci kattanu yàlla am na benn centre social moo xam ne président Macky Sall moo ko mën ci Cheikh mois a bi mi ngi ci ñeenti at moom itam waxoon nañ xamoo lu ko gàllankoor xëy na entrepreneur bi waaye li ko waroon a génn li ko waroon a defar yëpp AGETIP defar na engagement ak entrepreneur bi loolu lépp bi ngi woon en cours ba yaakaar naa finition moo ci des ñaar yooyu mooy yi nga xam ni bëgg nañu président Macky Sall jàppale ci Sëñ Moustapha ba mu àgg ci jàmm ak salaam ñaareel ba centre de santé bi itam amoon na benn dentiste bu ñu fa indi woon dentiste boobu dafa ñëw rek benn période ñu jël ko yóbbu ko nañu sant euh, ni muy doxee na di tax ñu jëlee ko fa leneen la waaye suñu sañoon keneen ñëw remplacé ko bu fekkee moom mënut a ñëw li gudd gàtt daal mooy bu su nekk gouverneur ñu ngi leen di sant maam délégation bi nga xam ni bàyyi ko nañ Touba ñëw fii ci CRD bi ngir ñu xool li nga xam ni mooy baaxal màggal gi waxtaane nañ ko liñ fi dégg yëpp itam dal na suñu xel sant nañ leen gërëm nañ leen chef de bu nekk li nga jëlee sa kàddu li nga waxee tam mënees na koo dégg dal na suñu xel waaye li ñuy ñaan rek mooy ñëpp ñëw ci jàmm nekk fi ci jàmm dem fi ci jàmm loolu nag li koy waral mooy sécurité routière yi mooy takk der yi gendarmerie nationale ñu bëgg xamal nit ñi ni fu ñu nekk seen i jëm moo tax ñu nekk benn aar ñu ak sàmmal ñu suñu alal kon nañu déggoo ak ñoom ci seen conseil yi nga xam ni dañu ñu koy ñoom ñoom li sàkku ci ñoom mooy welew yu ndaw yi ay jakarta la wala doogu yi gën a rëcc ci àddina mooy ñaar yëpp di gën a rëcc ci àddina moo di mooy daf daan tiit am na ci kanam muy tiit naan ndax lii dina baaxal lu ma ciy génne nee na mosul tiit ba gis li mu tiit kon lan moo tax mu daan tiit ñaari bi daan maslaa ci dëgg mooy dëgg kenn waru ci maslaa ñaari yooyu la gën a rëccu kon dëgg ñoo war a def liggéey bi ñu xool aussi ni ñu ciy waxee ni koy waxee ni ñu koy defee ba lépp si tamit mën mën a mën a antu vraiment tamit suñu aussi suñu xel dal na loolu parce que engagement yi nga xam ne daal vraiment de l'État yi ku nekk ak wàll bi ba mu ñaar la dafa am engagement yoo xam ne ñun ñoo ko a jël ñun mu dépend ci ci bi ak département bi loolu incha allah moom amuñu ci amuñu ci benn amuñu ci benn euh, si si si maintenant am na ci yoo xam ne aussi peut-être tënkuwul ci ci ci ñun mooy a mën mooy mooy mooy mooy maye waaye li liggéey mooy

mën a ñëw ci jàmm tamit ñoom ñoo am ci tamit ndam parce que ndam